Monsieur le gouverneur man 1960 yàlla ma moi j'ai vécu ans. j'ai vécu Abdou Diouf on a partagé l'école Brière de Lille Je suis en CE2 je suis en cours supérieur on a partagé le dar de la zawiya de Alhaji Malik Sy fa Je ñu wàcc alxuraan mu dem di fi administration

xam na ni may nekk mbedd sëriñ sooy dem ki lay wuutu may nekk de cérémonie kay dem seere bu nu dajaloo danaan nu Golbert jiitu fan la yóbbu may nekk mbedd cérémonie j'ai l'habitude de dire dans la tâche de MC que n'est pas administrateur civil qui veut kii toog sa wet avocat international même cursus, même formation, même regroupage de diplômes pour les connaissances afin de gérer le pays correctement. Mais il y a les pitié des administrateurs civils pour leur dire je vous confie la tâche de la République. On vous confie 15 millions de dollars. Vous te gën vous yaay gën le papa dara ci coobare moo naan tabaaraka ni ñii laa leen dénk te venu à Saint-Louis adjoint tu vas trouver là-bas qui es parti dans le Fouta ma wax kii ni ko maa ngi def benn takk du ma xaleel nag j'entre dans mes dans ma soixante e année alhamdulilah mais du ma xaleel ma wax Daouda mi ni ko maa def benn remarque depuis Abdou Diouf les grands gouverneurs du pays dañuy nekk ay préfets quelque part jékki-jékki ñu setti on les amène à Saint-Louis comme adjoint on les balance soit à Polor ou à Matam. Comme préfet, on en fait des gouverneurs. On les fait revenir à Saint-Louis. Ils terminent à Dakar et ils gèrent ce pays. du administrateur la sont defal sa Ils sa la defal Ils Ils moi je suis pas politique mais dafa me Ils ça Sall Ils ma liguer.

MC il y a la yaa mais quel du mais je ne l'offre qu'au président de la République quand il quitte Dakar il dit à sa femme Mariam waxal chef protocole danaa ñëw tel jour organisation de nañ à part la sécurité et l'administration entre les mains de Père qui kii mooma dugal ci li ma nekk

poste joxal facteur bi mu yóbbu leetar bi kii bés bu nekk lettre am dem par jour hmm. kenn mënul calculer ce que cet homme en direction de toutes les populations ci ay noonam ci ay ñi koy nax ci ay ñi koy fen ci ay ñi ñëw di wut pour am lu ñu yóbbu waaye ku ñëw loo wax rek mu defal la nga bëgg pourquoi daf la jàppee na boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis rek jàppee na la boppam kon jikko sang bi laa ne woyof na tol lewet dom yaatu lool bëgg ay mbokkam fonk ay soxnaam ak i waajuram bëgg xeetam alpulaar man may wolof dégguma ci xaala wala kasiran mais ma xool ko xam ni kii mën naa ànd ak moom ndax fi ma toll monsieur le gouverneur lu ma am doon ci àddina dootuma ko am mais lu ma dese liggéey réew mi xale yu xool ci man jigéen ñi xool ci samay soxna ñu maase sama yaay yedd xale yi ma ni kuy ànd da ànd ak gor ak ku weex tàll ngay ànd ak gor ak ku weex tàll dàttu létt ba moo di diine yi ak alxuraan bi moo tax mu dëpp di def lii may def nii te mos chef d'état dugal na ma ci bureau chef d'état gouverneur dugal na ma ci bureau tëj bunt bi le témoin la ni ma waxal loo bëgg ci àdduna ma defal et je le cite c'est Abdou Diouf ma ne ko jàkk di ko xool waaye ni xam ne monsieur maa ngi yow yàlla waxal loo bëgg billahi ma ma ne ko mënoo ko mënuma ma loo bëgg man ka nekk chef d'état ñii nga ma recevoir ma la koy recevoir mun sacré golfère wax nga dëgg de loolu mënu ma léegi nag loo bëgg ma nga yërëm askan nga dimbali baa loolu nga liggéeyal réew mi boo fi jógee yëpp sa gannaaw ga ak yàlla defal nag yàlla na yàlla fa fan lag ma gis ci moom ba wax ko loolu laa gis ci kii ba topp ci kii je m'en arrête là pour me Bye.